këyit ñoom man nga koo bañ a jaay ma ne ko waaw mu ne ma bëgg a jaay xaw ma nekk mi ci sama poos xaw ma nekku ci waaye Baye Ibra Diop defal ni ma lii moo tax ma tudd ko bu ma ci jógee ne ñëw Kuré Jal maa ngi nuyu suñu papa yi toog nuyu Babacar jaarale ko ci ñoom Baye Babacar ñu koy nuyu Baye Babacar di nuyu góor jigéen mag ak ndaw di nuyu papet mi nga xam ni doomu dëkk bi la di dimbali dëkk bi nekk bitim réew tase na maag moom Italie ñu ngi lay nuyu di jël nuyoo bi di ko teg ci turu mbay mi nga xam ni moo jiite xale yi di ko teg ci turu kase mi jiite jigéen ñi di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di nuyu Modou Gueye waa xëy di am mbégte ci teeru bu rëy bii ngeen ñu teeru di leen sant di leen gërëm maak ñi ma àndal ñëw fi waaye ak ñi ma àndalul ñëw fi ñi ma àndalul ñëw fi dinaa ci tudd président Macky Sall président wu Sénégal bëgg réew mi lool bëgg liggéey lool su ma ko indee nuyoom indil leen nuyoowu suma rak suma xarit ay meeru njig di président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di maire commune bu Mérina Dakhar nu bokk fa nekk may magam muy sama rak di plénipotentiaire ci élection yi ci département Tivaouane ma indi leen nuyoom parce que suba bi mu xamee ni fii laay ñëw ma indi nuyoom ñor na ko lool di leen indi li tam nuyoo Omar bi nga xam ni danoo ànd créer parti muy parti africain de renouveau libéral ñu di ko muy parti bu bees nu ànd nag ci biir loolu ak président Macky Sall li tax nu ànd ak moom xam na ni liggéeykat la xam na ni bëgg na réew bi xam na ni mën na koo yor itam firnde bi ma leen di rek. moo di at yëpp dégg ngeen may politique dégg leen ma tudd Macky Sall pourtant Macky Sall bii def na ndeer gi ba dëkk moo may courant ba ma wàcce ko jaarale ko géti yóbbu ko ndeer naar te kenn déggul woon ma ni Macky Sall ànd moom walla leneen PDS la ma yàlla boole loon ma nekk ca kilifa ak yéen ñii Babacar ak ñëpp PDS bi nga xamee yàlla nanguwul mu nekk ka mu am candidat mais dama man maa wane yoon wi parce que maa wax ak Ablaye Wade ak Karim ne Karim mënul nekk candidat Ablaye Wade nangul ma ko Karim bañ ko ma génn ndax kenn du ma ba te kete topp mooy ba dikkee ñang waaye tey jii àddina jox nañu dëgg li may génn gisuma man ku ma attan ku ma attan ci réew mii ku dul Macky kon tey bu ma ko defee loolu nekk ci coalition benn bokk yaakaar ànd ko ak suba rek ay meeru ànd ko ak président Macky Sall suma rek bi mu ñëwee Mérina Barki dem dañuy taala suma mag te mooy yaa ngi toog télévision bi seetaan ngeen ko taala sama mag su ma neexee ne Macky Sall su rek su ma neexee ne ay maire suma ma rek su ma neexee ne Omar sama rek su ma neexee ne Babacar sama rek kon loolu aw sas la kon li ma war man moo di xool li jëriñ population yi xool li jëriñ réew mi ak koo xam ne mën naa jëriñ réew mi ndax réew du ay caaxaan oto yu bari yoru ko tëgg yu bari yoru ko xam-xam ak man-man moo koy yor ñëwuma fi pour defal leen bilan wu Macky Sall ndax xam ngeen ma gëm ngeen ma yàlla boole nu ñuy liggéey te nag kuy naxee naxee naxe moom doo jëm kuré jàll ndax ay ay ay ay nit ñoo fi nekk ñoo xam ni di liggéey di dundee ñee ngi bitim réew ñee ngi ci réew mi yor seen capacité di def seen i gàmm def seen lépp tegu leen kenn dara kon booy naxe booy naxe da ngay teggi kuréel waaye teeru bii nag maa ngi leen ciy sant ndax teeru bi wane na ni ñun fii ñu joxe muy benn bokk yaakaar ànd ci pour falaat premier Macky Sall au premier tour kuréel tuube kuréel tuube xëy takko xandiraan ànd ngeen ci te ñu ne ni dañuy politique samay ndongo lañu ma ne samay ndongo lañu Bassirou Ndiaye mi ne fii tey bàyyi ma ñëw Alaaji Mbaye Ndiaye géti garaaf ñu ma yow de doy nga ma te li ma jaaxal ci yow mooy dangaa ñëw ci département bi nanguwul a ànd ak Aziz xeex ba gañe ko ñaari yoon te sama doom ji dénk bi muy nekk conseil régional ba indi ko fa njàngam des na mu war a jàngi France je parle de Bassirou Dia Bassirou Ndiaye laay waxal Babacar Diop nekk président conseil régional mu ni di ko bàyyi mu dem man ko di ko bàyyi foofu laa man a yem ci ay teggin Fa Jaar ak Babacar Diop ba mu signal ko mu dem foofu laa yem mu dem jàngi ñëw yokk njàngam ba mu ñëwee ñuy wate ñun conseil régional ma ne Idrissa mun naa man ko bu ma jàngoon may doon président conseil régional kenn du ci teg bat Bassirou Ndiaye mii comme da ngaa bëgg fal Idrissa Camara mi nekkoon gouverneur Bassirou Ndiaye ne nekk secrétaire général ñu def ko waaye nag musuma manke respect fu mu toll mi may jox cër mi may woo di xam loola waaye nag li ngeen bëgg da koo mënul Bassirou Ndiaye dama ni maga wax fii dama ni li ngeen bëgg da mënul bu ko mënoon defan ci dara lu ko nuru fii waaye nag noo bokk kilifa maag moom nit ku baax la xale bu yaru la loolu laay wax ci loolu ma leen xamal ni li ngeen fi wax lépp dégg naa ko bëgguma guddeel trop ma di leen sant di leen gërëm di sant ñii ma àndal fi sori na neexul la ñëw te ngeen def ko ak xol bu sedd man damaa yaakaar ni journaliste buy jóg danaan danga may fay ndekete man daal journaliste Thiès yi département Tivaouane yi ak Thiès moom jaaxal nañu da ngay jóg rek dem daal karang karang yi te doo wax barke sëñ Touba la doo wax nangam nga may fay loolu kenn musu koo gis kon maa ngi leen sant di gërëm ñi ma àndal leen sant gërëm ñu fekk sëñ leen sant di leen gërëm léegi wax ngeen fii ay doléance wax ngeen fii machine mu lay mu lay mu lay am mille ni vingt cinq mille mooy jël segment dinaa leen ko may wax ngeen fii wax ngeen fii foora ba suñu forage bi fukki junne juróom ma koy segmenté dinaa leen ko may. waaye li ma mën a gul nag li ma mën a gul may naa leen ko moo di comme bëgguma wax lu ma xamul bëgguma digg lu ma mënul ki koy liggéey lu mu leen ni moom ngeen fay fay ngeen koy fay di ngeen mu koy wax. ma xam ko soog ne may naa leen ko fekk xaw ma ko mënuma leen koo may waaye luy matériel bi may ko luy matériel bi may naa leen ko matériel bi mu lay am bi may naa leen ko ba mu des payu kii liggéey forage bi su ngeen waxee moom ñun mun leen nangam ngeen may fay ngeen wooma ni nangam lay fay bu ma leen ne may naa ko am ngeen ko li ci des jigéen ñi dinaa leen may ak waa kër gi fukki junni bu gàmmu gee gàmmu gi gàmmu gi bu gàmmu gee dinaa leen yónnee délégation Mor Gueye mii dina fi ñëw Mbacké bu gàmmu gaa ci boppam comme gàmmu gi jigéen a dinaa fi yebal délégation Mor Gueye mii mooy ñëw ndax damay ànd ak président Aymerou am fu ñu dem kon Mor Gueye dina fi ñëw sama tur waaye du fi ñëw di toog du fi di dem ay cérémonie bu ñëwee ba ngeen ba ngeen yëg ci seen yaram ni ñëw nañ fi day daal di ñibbi kon du ñàkk lu ma fàtte di leen xamal ni ñun li tax jóg moo di man président Aymerou Omar Sarr ak benn Bokk Yaakaar yëpp mooy ñu fal président Macky Sall au premier tour parce que bugguñu bugguñu mu dem deuxième tour te li mu liggéey ci réew mi. muy ay forage muy ay tali benn laa ci tuddee Ila Touba muy jàkka yi muy defar mooy jumaa yi kër diine yi dama ne loolu fal na nit ndax président yi fa jaar bari na waaye moo ko fi ma saxalaat moom moo ko fi ma saxalaat defar këru diine yi ba mu jekk defar yoon yi ci jëm dafar fañ fa kër gu bu diine bu mu fa dem liggéey na fa kër goo xam ni bu ñëwee dina fu mu fanaan dina am fu mu yendu kilifa diine yi gërëm nañ te ñun nag amuñu lu dul suñu kilifa diine yi waaye waxuñu ni nag defal kilifa diine yi ñu fal ko defal defal kilifa diine yi defal population yi ko farul foo dem am na lum mu def foo dem am na lu mu fa def man nag damay ànd ak koo xam ni. bi may fii def école bi ah, nekkaguma Abdoulaye nekkagul président kon bu fekkente ni yàlla dogal na tey ma ànd ak Macky Sall mu nekk président duma leen dig dara waaye li ngeen lépp nag li ci sama kartan fii ma toog may naa leen bu subaa subaa ba kat ñëwee li ma fi lim ci xaalis ma jox ko bu ngeen keneen. soo na si ñëwoon ñi ñëwoon ndeer de bu gis ngeen bu ngeen ñëwee ma jox leen ko bu ngeen bëggee ma wari leen waaye moom du ma yebal oto ndax yoon wi njeexul waaye nag dinaa dinaa di diggéewuma de ndax aw yoon kenn du tëb di ko maye dangay xam lan mooy aw yoon ak lan mooy tax nit man ko am soo ko xamul boo mayee bu ëllëgee da nga fa ñu man du ma def loolu lu may maye lu ne da ngeen laaj bi ma doon laaj mooy ma xam li may maye lu mu doon ndax am naa ko wala aw ma ndax mën naa ko wala mënu ma ko li fi tudd lépp mën naa ko liy fay euh, liy fay mécanicien bi mën naa ko waaye bala ma ko diggee damay xam ñaata lay laaj kon Modou Gueye mu ngi sant ñëpp dëkk yi fi teew Xandiraan Toubé xëy tàkko Kuré Dial xam naa gaa yi ma àndal dañ jaxle waaye dama yàgg lim dëkk yi dama ko xam kon nag ci kaw tëj ndax jullee ngi jot te Baye Bakar day julli sama xarit bii day day julli ji kon dama defa ni bu ma paree mën na ma tëj ci lii ngeen xam ni na ngeen góorgóorlu ca bisu wote ba bureau bi ñu gañe ko kat yëpp nekk fal makk Sall bu ñu ba ca ngoon te bu ngeen falee Macky Sall bu ngeen falee Macky Sall vingt-quatre te suba sa woo ma ni ma loolu defal ma lu leer la wax woo leen ma ni ma loonuy defal ma wax leen ko suba Babacar ku ñëw li ma fi ci xaar ma jox ko. salaamaaleykum mbokk yi kon nag yéen ma di leen nuyu ci seen tur ak seen sant di leen tatagal di leen wax ni fii mooy Kouré dëkk la boo xam ni dëkk bu ñëwee péetee ñi fi daje nag mooy waa Toubé waa xay tàkko waa Bayax waa Xandiraan ak waa Kouré gi muy nit ñu ñeme péete te bëgg mbër te bëgg jàmbaar bëgg ku ñeme ku amu fit ndax ñoom duñu yox yoxi duñu arrière duñu def leen muy jëm ji nga xam ne tamit mi ngi fii ci yoonu Tuubaa comme ni ma ko waxe woon bi ma ko indi fii métti woon na lépp waaw muy école bi école bi bi ko fi indi métti woon na lool waaye ginnaaw yàlla tënk-tënk bu ne daanaa ko dégg daaw jóge ku yéen wër ak li neexee ma toj bu yax bi day dem ba di fi téléphoné ay kilifa ni leen bu ngeen bàyyi woon école bi baaba ak Pène mu naa ma ko dinaa leen def lu bon ñuul batiku école boobu ñu di ci yàq di ci yàq waaye yàlla alhamdulilah école ba yàlla def na baax na ban ko jëkkee def jàng fi yetti ba ko yenteel fukki nit ak ñett génn fi daaw jéeg fukki nit ak ñaar génn fi ren ci raakal naa ni lu bon bon lu ko ëpp foofu dana fi génn ñii nga ndar ñii nga ndakaaru ñii nga Kaolack ñii nga Thiès ñii nga fu ne di jàng pour bëgg a génn kon nag lu fi jóg alhamdulilah yàlla ak moom ak waa dëkk bi ci jàpp nag. ah bu loolu paree nun noo daa ànd ci fépp muy muy politique bu mu doon léegi nag wëlbatiku na. nee na am na parti bu bees boo xam ne da caa bëgg a nekk ak i bokkam ak i xaritam ku di xaritam te man may xaritam féeteeg moom yàgg ànd ak moom yàgga defanteek moom te lu ne nag mu dama ko jox ma di ko indi ci kuure gi kon ma bëgg kuure mbir mi ni mu demee nan ko jàppale bu baax fa nga xay ni foofa la jëm nu ànd ak moom def wenn say fa nga xay fa tamit fa la du daa jëmit bu soobee yàlla buñ ko fekkee nan ko daa defee rek dóor mu daanu waaw bu soobee yàlla kii nga xay nee na moom la àndal muy président nun ñëpp d'accord nañu ànd ak moom taxaw dóor mu daanu mu teel a gagné premier tour ah leneen li ci des nag a ah, yéen waa Kouré moom kenn du leen jàngal leen yéen ñi ñëwit xam leen ni taala moom moom dëkk bii bokku ko kenn ab dëkk ma kum fi yabal ni lii laa bëgg loolu bu dikkee nun ñëpp danu ca ànd danu ca saytu danu ca taxaw nam gën leere mu amee salaamaaleykum yow Talla Diouf yaa ngi nga maas maa ngi ko yow xam naa la gor su set nga ku baax ku gore nga kon yow Talla maa ngi leen di ñaanal di leen masawu ci yoon wi ngeen ñëw coono beeg xat-xat yeeg naqar gi yoon wi yoon wi ku ne xam na ni neexul wax nag lu mu nar ko na baree na ko nekk dëgg man baaka sama rakk la fu mu tegub tànk ma teg fa sama tànk benn léegi Talla leen lay wax liir dañuy politique dëkk bii nu nekk di Kouré communauté rurale bii nu nekk ngir muy muy muy nguur Macky Sall gii ñun de gis ñu sun bopp. gis ñu suñu kaw laa koy wax xoolal nun li dëkk bi toll du ab hôpital du yoon du lamp du dara dëkk baa ngi ñuul kuk am forage am ndox bu nu naan képp mënu ko fi tey jii dañoo yéenoo marché barke Cheikh Issa laa man. léegi nag nun lii la ay ñeeño dongo nanu ku nu nekkal nu nekkal la ku nu jàppal nu jàppal la léegi nun sonn nanu lot nanu xiif nanu mar nanu lii man moom laa moo la wax jërëjëf Diouf yal na sa taxawaay yàgg li nga wut yal na ko am kon boo ñaatee fii ñu àndaat ak yow kon lépp loo xam ne maanaam wax nga nu ko danañ ko gëm ndax li tax ñu koy gëm mooy lii nga xane ne mooy école bi ci suñu ginnaaw ginnaaw yàlla sa jëmm ji ak jëmmi baakar ji moo tax ba mu ñëw ci dëkk bi waaw te kenn ku ne xam na ni fi àdduna bi toll dara mënu ko doxal lu dul am njàng kon gox bi bu ñu demee ba nga xamante ne bi am nañu ab député lépp loo xamante ne bi maanaam dañ koy ñax ci gox bi yàlla mën nañoo dimbali ba loolu mu am ta yaa ngi ci tànk yooyu ndax li tax nga ne ci tànk yooyu école bii nga nu indil wax dëgg yàlla ñi ngi commencé denc ci réer xale yi wax dëgg yàlla ñi ngi génn macha allah. di dem fu nekk di jàngi yal na yàlla def ñoom ñëpp kenn ku ci nekk seen yéene mu àgg ak jàmm ko kon taala ñun jeunesse bi yëpp ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi lay tàllal tamit loxo ndax bu ma waxaatee li Cheikh waxoon day mel ni nettaliwaat rek kon dëkk bi gis nga ko war na noo amu yoon war na nu am courant war na noo am hôpital sunu machine baa ngi nii paan ñetti fan ci tey suñ la ko waxee buñ la ko waxul yëpp ci aw mar la nekk kon loolu na nga ci dimbali bu baax a baax forage bi forage mi ngi ne dafa paan ñetti fan kon ñu ngi la ci tàllal loxo bu baax di ci tàllal loxo ki nga xam ne tamit moom nga àndal ñu ànd ak moom muy monsieur le Macky Sall ñu ngi koy tàllal loxo bu baax ci loolu tamit wasalaam. kontaan ci yoon wi nag bëgg ci lool te boo xoolee nii di nga xam ne bëgg nañu ci ndax am nañu yaakaar ci yow ndax li nu may yaakaar ci yow danga noo waxan loo def kon démb bi Bakar jógee rek ne ànd leen ànd leen ci lima ma ànd rek. kenn dematu fenn ñun ñëpp danoo bokk toog ci la xaar gis nga nag nii bu fekkan lu jëm ñetti fan la wala ñeent mbooloo mi dina ëpp lii ndax xam naa ne tuube kenn desul xaytaa ko ñëw nañu xaandiraan ñëw nañu bayax ñëw nañu fekk fi waa kuure gi kon yow taala am nañ ci yow yaakaar na la leer ni dem ba léegi naanunu amuñu machine wal sunu machine baa nga ne bañ ñu karkaree ba am machine machine baa nga moteur moteur ci boppam lañu soxla moom lañu lay ñaan. man sama ndaw ñëw na fa démb dikkuma démb ndax xat-xat yi waaye kenn mee fa taxaw ci sama kàddu la fa taxaw dimbalu na laay war a sóolu xam nga ni soq wal amatul fenn te machine benn karkar yoon ba mu ni machine baa nga ne tasar taala jàppale nanga na nga jàppale nu na nga nu jàppalee woon ba nu am école ba sunu xale yi mën a xàmmee lu xew ci àddina taala noo ngi lay noo ngi lay taalal sunuy loxo di la ñaan ci kattanug yàlla. loo am rek nan ko bokk nga séddunu ca noonu waa Kouré nala leer ni nag nun teggiwunu sunu tànk tey teggiwunu ko ëllëg fu Bakar mii rek jëm fa la nu jëm ndax Bakar mi ma pene sa caam maa le ma naar maa jaara ngoone waadu Fatim caam Bakar yow saa waaja saa waaja ndama nga ca gàccee nga ca yokkam ci ku yokk nab taxawaay waaye ku soon dellu fa nga nekkoon mbëtt mu ne bëgg na dib senk waaye yàllaay saakum xose boo woote rek di nga sa yaaya ko boo woote rek am mbooloo ndax mbooloo nag yombul mbooloo yombul mën nañoo luyee sees waaye kenn mënta luyew nit waaye yow moo woote rek nit ñi dina la wuy si man li laaj ci am ci lu may wax nag de tàllal la samay loxo nag ta xam ne ba ma la samay loxo boo ko tàllalee Talla Diouf dana fas suñu aajo foofu rek laa mën a yem. asalaamaaleykum Modou Gueye Modou Gueye da ngay wax sa tur da ngay wax sa tur Modou Gueye xaytaak ko wa rahmatullahi taala wa barakatuhu damay defe ni eh ngeen may ma tuuti damay defe ni damay defe ni délégation bi duma ci gan ndax bu ñu nee Talla Diouf woote na Modou Gueye wuy si na kenn du ni dina gan la ganay wuy si Talla Diouf kenn du ko wax kon nag li Talla wax dégg nañ ko du jari nuy sori ci programme bi ndax man nee naa leen moom ma nga nee de du ma ko neenal kera ba ma woo ni ko boo waxan pël ca màng ga ma ànd ak ndax sa jëm moom la ko wax de te lu ma waxit man naa caa delluwaat man nekke wu ma koo xam ne fii ma ñuul tey ma weex tey ma njuun fa taala aw rek aw naa fa bu amee baax na bu amul lu bokk ñàkk man loolooy saa mbir délégation bii nag joge xay tàkk ko maa fi indi nun nag taala dem na sunu dëkk doo ngay daara la nu bëriwul lu nuy waxantoo lu nu wax nit rek mi ngi ci nun barke démb bi fa am ñu fa ñëwee dama leen nun lu nu wax rek mi ngi ci nun kon taala noo ngi lay gërëm te di la sant te di la xamal ni boo déggante ni tey jii lii kii wax ñëpp man naa ñëw dëkk ba kenn du fa des délégation bi ma àndalit mi ngi nii dina ñëw wax seen kàddu nun kàddu gi ñuy wax daanaka mën naa jeex ndax wenn dong la wenn yoon la nun nag na leen wóor nag communauté daal nga fu moom ku leen ne ayu ma kisaal neex na duñ ko mën a gëm ndax gisuñu ci suñu bopp loolu nag loolu nag dañuy wax ni du Macky Sall du Macky Sall ñi fi teewal Macky Sall ñoo nu waaye du Macky Sall Macky Sall xamul nga njuuf ñi fi nekk ñoo war a xam nga njuuf ñoo xam délégué nga njuuf kon taala noo ngi lay ñaan nga dimbali nu jàppale lii ah ki dëkk xaytaako nag ku jigéen bu dikkee dina wax délégué ah, seen délégation xaytaako màggat kan ñëwal. asala. Maguette Kane Maguette Kane. da yow Talla Diouf ñun ñun waa Xayta ñoo lay nuyu yaag sa délégation te di la xamal ni la nun Modou Gueye mii fu mu aw rek fa lañ aw. boobu ba tey nag barki dem ba léegi. say wax rekk lay wax te yàgg na laa tudd lu dul lii ñuy dégg mu lay wax nag lu baax di seere rek lu baax ci yow moo tax bi nga wootee ñu wuy si la xam ne lii duy caaxaan ndax yàgg na koo wax ñun nag li ñuy wax rek lañu wax ñun gisuñu suñu bopp ci nguuru Macky Sall ndax ñun du lenn loo xamante ni jël amee nañ ko ci nguur gi bi mu ñëwee suñu dëkk dignu maire bi fi nekk fukki sees lañu ñu mas a am si nguuram te xam nga ni fukki sees du dara ñi ngi lay ñaan nag ñun li ngay wut yàlla may may la si ndam ci barke sëñ Fall bis boo ci gisee ndam nag ñi ngi lay ñaan ñun misunu suñu wal lañ soxla mi suñu soq lañ soxla ak mi suñu café wal kafe ndax dëbbu kafe kenn defatu ko